di sant yàlla rek parce que dama wax ne man taalibe yi depuis maag ñoom depuis 2000 maag ñoom ba léegi xam nga olof Ndiaye moom dafa ne lu yàgg lu ne dëgg la waaye taalibe yi moom maag ñoom depuis 2000 laa démarré ak ñoom ba tey jii fii ma taxawe nii di sant yàlla nag di julli si yonent bi sang-sang yi di sant samay ñaari waajur waaye di sant samay staff yi may àndal waaw di leen sant parce buy métti maag ñoom la bu naqaree maag ñoom la di sant sam sama càmmiñ sama xarit koo muy maire Fatick di Matar Ba di ko sant bu baax di sant staff bi di sant képp koo xamante ne yaa ngi yeewoo Fatick rek te nekk sama naataangoo nekk politicien maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla euh, man kuy miin na mbalka man taalibe taalibe laa dama nekk taalibe boo gisee tey jii xale yi nga xamante ne seen bopp ñu ngi ko tudde ayem taalibe man seen marraine laa parce wax dëgg yàlla dañ ma gis def ci taalibe naa ba parce que lépp loo xam ne maa ngi ko doon jëf ci Fatick xale yi ñu ngi koy jëf ayam taalibe te lépp nag booy roy royal lu baax te booy jëf lu baax tam ay nit roy ko da ngay sant yàlla tey mënoon naa wàcce samay loxo mais duma ko def parce que wax dëgg yàlla am naa ñu ma awu am naa ñu ma awu ci anam bu sell anam bu set anam bu rafet boo xamante ne lépp luñ récolté récolté wuñ ko pour def ko ci seeni poste dañ koy récolté pour def ko ci taalibe yi di gërëm tam sëriñi dafa métti métti na torop mais wax dëgg yàlla dina ma ku mel ne man su ma doxee ba 2 heures du matin gis taalibe sax damay fëgg foo nekk mën a lii ma yóbbu la ba ci sa sëriñ kon man tam damay jéggalu sëriñ daara yi di gën a féddali sama kóllëre ak ñoom di leen di ñaanal yàlla taalibe yi ñuy jàngal xam-xam te nga xam ne suñu borom lim lim sàkk képp koo xam ne yaa ngi jàngale te xam-xam wax dëgg yàlla kooku moom sa kër a nga caa àjjana yi gën a kowee kon yàlla na leen yàlla fayal boppam yàlla na leen yàlla yiir parce que lu ne dinañ ko daj secret sama nattu la xam nga li nekk sa nattu moom bu jotee ala kuli àll danga koy def su ma paree si taalibe yi incha allah jouri tabaski bi balaay suñu waa kër di lekk dara hôpital laa jëm lépp loo xam ne war naa ko fa def ci lekk ba nga xamante ne ña fa tëdd duñu xalaat ne ñoom tabaskee wuñ àll danaa ko def sant yàlla sant yàlla rek bi ma yàlla xiiree ci loo xamante ne lu neex yàlla la dama ciy sant yàlla mais di sant samay waajur di ci sant samay rakk di ci sant samay famille mais di ci sant staff bi ma yàlla booleel may ànd ak ñoom mais di ci sant tam waa dëkk bi ndax lépp lu may def du ma ci wéet comme samay càmmeñ a ngi nii taxaw gis nga ñoom Macky Faye ci koñ bi lañ dëkk ñoom As Ngom ñoom Waali ñoom Papa Mbay ngi fi du ciy wéet ni ci ñoom Astu Jeng tooge Darma ñoom may Maymuna Njaay ñoom Ndey Koddu Juuf noonu lañ ñoom nekkee si sama gannaaw lépp lu may def ñu def koog ñun ba si yow mi taxaw sax bu dutoon euh, li nga yore euh, micro yi da ngay ñëw nekk si sama wet kon sant yàlla ba ma yàlla xiiree ci lu baax mais samay am di jàppale ma si samay nit jàppale ma si ma ciy sant yàlla bu baax. waaw Ousmane man dama wax ne yàlla li ma nattu dama ciy sant yàlla bu jotee te defuma ko su ma ko amul sax dama koy lebi pour def ko maa ngi sant yàlla nag ba may may wër ak wër la ba nga xamante ne bés bu ma koy def dama koy defee sama ñaq dama ciy sant yàlla bu may defal taalibe yi sama ñaq yu ma lew doom ma liggéey ko ñaq ko laa koy defee dama ciy sant yàlla bu baax a baax di ko delloo sant di ñaan yàlla samay waajur yi ma desee yàlla na leen yàlla gën a bàyyi ak man bàyyi maak samay rakk bu baax a baax a baax mais li ma la bëgg a xamal mooy sëriñ daara yi dama leen di gërëm di leen di sant dama leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax di leen di sant di gërëm sama imaam euh, imaam joob mii di dugg si nii tey dama koy gërëm bu ma gërëmee ñoom Waly Diouf ayam taalibe ay ñoom Papa xale yooyu ay ñoom sukka sama doom yooyu dama leen di gërëm di leen di sant waaye nag damay gërëm ku nekk kenn si man koo xam ne fu ma taxaw te tudduma turam rek la may wax du safe kooku mooy kan mooy kenn koo xam ne si man la nekk muy ministre Matar Ba maire de la commune de Fatick di ko ñaanal yàlla yàlla gën ko taxawaayam gën a dëgër di ko ñaanal staff bi waaye ci lii ñuy jëm si di tabaski maa ngi ñaanal sama càmm ñi nga xam ne maa ngi ñoom ñoo bokk APR nekk ay ay ay ay responsable yal na leen yàlla may lu ñuy joxe sama moroomi jigéen yi nekk APR dëkk si dëkk bi nekk ay responsable yal na leen yàlla may li ñuy joxe man lañ koy ñaanal di ñaanal yàlla ne journaliste yi nga xamante ne aussi itam suñ mënee wax mu génn wax bi ñëpp dégg ko grâce yéen la ma leen gëm sa bopp rek chaque jour ma ne leen. dëgg yàlla man dama leen ne balaa ngay laax jaay dangay laax lekk aw ma lu dul sama koñ Logandeem bii laa am fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa defe li ma defe fi laa ma fi laa mapate kon lépp lu ma am balaa may xalaat samay njaboot sax damay xalaat waa Logandeem yi ku nekk xam na ne léegi ren yëpp a yokku su ma xaymaa li ma teg fii dina ma 3 millions wallaay la azim te loolu moo am. te ëpp ko sax wallaay la azim loolu moo am mais dama si kontaan su ma yàlla mayoon ay milliards dama koy def ba bu ma tegee sëriñ daara yi jox leen ay billet màkka mais xaj na yàlla mi xam ne mooy joxe te ku ko ñaan mu may la maa ngi tàllal sama loxo suñu borom xaj na dinaa mës a toog fii di ju sëriñ daara yi ma naan leen billet yaa ngi nii 1500 taalibe laa jox yére waaw soble moom li ma joxe mënu ma ko xayma sax parce que 300 saak yoo xam ne saak bu ne bañ naa 20 kilos mu ngi si joxe naa ko. joxe naa ko joxe naa ko ak li nga xamante ne danga koy def te doo ko wax parce que booy jëfal suñu borom jarul gistal booy jëfal suñu borom jarul gistal defal rek te yàlla tax parce que yàlla mooy fay waaye bu yàlla fay yal naa ko bopp képp ku ma ko yéene ak ku ma ko yéenewul li ma jëf démb tey si tabaski bi mënu ma la wax ni mu toll mais sant yàlla ba ma yàlla mais kàttan ma mun a ñàkk jëf ko damay sant yàlla sama dernier kàddu mooy man ma euh, responsable la politique fii si Fatick di ñaanal sama naataango responsable politique yi waaye di ñaanal président Macky Sall nag fa mu nekk wax dëgg yàlla jooy nañ torop torop torop torop torop torop ndax man nag wax dëgg yàlla ku ma xam-xam maak président Macky Sall te duma si tàyyi te duma ci deltu gannaaw tey laa gën a nekk pion Macky Sall fii ma taxaw tey laa gën a nekk pion Macky Sall di ko ñaanal yàlla ñun doyaluñu dañuy ñaanaat yàlla président Macky Sall ñëwaat ba téyewaat nguur gi si loxoom parce que ñun doyaluñu te président Macky Sall lañ gëm ñun gëmuñ kenn dara fëkkuñu ay pion Macky lañ président Macky Sall lañ gëm dara fukk ñu ci kaw suuf te ñoo moom ba bu mu nee baax na ñu ne baax na mu nee doyalatuma ñu defatuma dara ñu arrêté mais man day ami lay mañ xamoon 2000 ba léegi moo nekk nii taxaw te lépp kadd gu ma wax dama koy respecté te lu ma wax dama koy def ñaanal ñëpp jàmm waaye di ñaanal imaam yi bu baax a baax. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen baal ak bu baax di ñaan tam liggéey bi yal na ko yàlla barkeel ñuy sant Ndeye Amy Leye nag bu baax di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla na ko gën a yàggal te wéral ko yal na ko yàlla musal ci mboolem man mooy sant ko gërëm ko ndax lii yàgg na koo def du loo xam da koy wax da koy soog a commencé waaye yàgg xam ne at mu nekk mu oote ñu ñëw kenn ku nekk mu jox li nga xam ne mooy sa wërsëg loolu tam dañ koy sant bu baax di ko ci ñaanal bu baax yal na ko yàlla gën a yàggal te wéral ko yal na ko yàlla sàmm na ko yàlla aar waaw sant yàlla bu baax ndax itam loolu buñ ko defee day tax ñu yëg na ñoom itam ñu ngi seen biir ay seen way jur ndax itam wax dëgg yàlla bu fekkente ne kenn ku nekk jox la dañ la jire jox la ay dàll day mel ne yaa ngi toog ci sa kanam way jur loolu itam dañ ciy sant bu baax di ko ci gërëm ndax itam xëy na ñun ñu doon seen sëriñ daara amaana ñun la doon war te comme ñun ko la ko defee kon ko defal kon loolu dañ ko ci sant bu baax di ko ci gërëm di ñaanal bu baax yàlla yàlla gën a yàggal loolu te wéral ko ndax itam lii wax dëgg yàlla sex mbir la moo xam ne mu rafet la mu baax la moo xam ne ñëpp ko sant ci loolu gërëm ko ci loolu ndax itam lii du ñëpp ko mën léeg-léeg sax nit mun naa am ci poosam waaye yàlla xiiru ko ci pour mu def ko kon nag ki nga xam ne yàlla dogal na mu am ko ci poosam di ko def te yàlla dong tax war nañ koo sant gërëm ko ñaanal ko yàlla bu baax itam te ñaan képp koo xam ne yàlla may na ko man-man comme moom itam mu góorgóorlu pour def ni moom rek xam ne li ñuy def deful ko kenn boppam la koy defal lii nag ku ko def sa bopp nga def defaluloo ko kenn kon lii muy def boppam la koy defal waaye ko defal war nga ko ndax itam bu la lu baax sant gërëm ko bàyyee ko ak yàlla nag bu ko defee yàlla fay ko ndax loolu mooy li am solo kon ñu man waaw dañuy dellu di santaat yàlla rek ndax tey ayam taalibe ñi si nekk dañ si am référence te référence numéro un buñ si am moom bokk na si muy maman Ndeye Amy Leye xëy na mu jiitu sax suñu juddu mu yàgg a def social kon ñun duñ juddoo fekk ko si ndax lii ba mu koy def ñun xaajuñ bay créer ay ayam taalibe mu nekk si ba tey ay doomam tey ñëw tey ànd seeg moom loolu sant yàlla la donc mu koy def chaque année ànd seeg ñun mu doon loo xam ne lu am solo la ndax xale yi euh, ay ay ay doomi yàlla leen ndax lu tax ñu ay doom parce que ñoom ñooy jàng wax yàlla muy alxuraan kon duñ amee tey ñoo xam ne tey ñu ngi leen di taxawoo si côté yëpp tey du weeru koor jotee du tamxarit jotee du korite jotee du tabak si jotee loolu sant yàlla la te moom mi si loolu la na ndax tey dafa nekk tey si conseil des sages bi nga xam ne ñoo nekk biir ayam taalibe di leen orienté ngir jëfin yu ñuy jëf kon tey duñ si duñ duñ si nekkee mu def lii mu def solal plus de mille trois cent taalibe yére loolu c'est quelque chose boo xam ne mun nañ wax ne c'est inoubliable kon nu koy waxee yàgg na si yàgg na koy def ñun suñu référence la dañuy delluwaat di kontaan ndax xale yi dan la doon romb di la laaj ah ndax yëre korité amoon na ndax yëre tabax si dina am te loolu moom da koy bàyyee xel waaw xamoon na ne peut-être mun na ne ay doomam dem leen ngeen kii mais def naan carrément yéen maa leen di war di jàppale di leen war di soutenir ba fu ngeen taxaw ma taxaw fa moo tax lii mu def ko mu doon loo xam ne mbégte la ndax solal na képp koo xam ne xale nga doon taalibe fii waaw xam nga comme wax naa ko sànq rek référence la ndax doon ne nday ami léegi ne si hôpital nday ami léegi si yeneen ak yeneen donc loolu euh, ku baax rek moo ko mun kon ça veut dire lu naan dëkk si dëkk bi baax na lool waaye jëfal waa dëkk bi itam dara ëpp ko solo te moom dafa bokk suñuy jëfal waa dëkk bi si taalibe yi si néew ju doole tey nday ami da ngay dem tey xale euh, taalibe feebar hôpital moom nga fay fekk nga dem feneen ak feneen ak feneen moom nga kon li ma wax sànq la référence la di oo euh, nit ñi képp koo xam ne mun nga def loo parce que nit moom dan naan kaay def lu baax moom ku la ku la yéene lu baax rek moo la ko mun a wax donc dañuy oo ñëpp ñu ñëw mel ni Tata Ndeye Amy jàpp si li nga xam ne moom leen war a jàpp surtout mag si xale taalibe yi mais itam si sëriñu daara yi nga xam ne ñoo leen di encadré je lance un appel solennel pour ñu gën a jàppale itam sëriñu daara yi parce que nekk neen si ay jafe-jafe yoo xam ne euh, doy na waar doy waar googu noonu xam naa ne tànday am mu ngi si ñeneen ak ñeneen mu ngi si mais ñu gën leen jàppale mooy lan képp koo xam ne sëriñ daara nga am fi terrain wala am fi ne nan lañ fexe ba nga am dëkkuwaay bu baax ndax jamono gi mooy seen problème ba sëriñu daara benn fi nga dëkk dalatul sa xel doo fa dëkkee benn deux mois trois mois borom kër gi ñëw génne la ñuy taxawaalu kon loolu ñun war nañ si mun a xeex ndax ñoom kat ñooy suñu kaaraange dëkk loolu itam euh, loo xam ne la ñu ngi siy oo képp koo xam ne doomi Fatick nga yor mooy loo si war a mun a jàpp nga jàpp ko pour sëriñu daara yi nekk si condition yu baax incha allah rabi xale yi waa lu ñuy laa ñaan état bi rek mooy ñu ñu subventionné côté daara ñu subventionné leen parce que dun demee ba école française am subvention pourquoi pas daara yi am subvention tey ñu ngeeg benn ñu ngi jéem a xool benn plaidoyer boo xam ne amoon na fi président Macky Sall moo ko mayoon les talibés mu tolloon si cent quatorze millions mu ngi iya donc ñu ngi jéem a xool ak maman Ndeye Ami dinañ si waxtaan ak moom xool nan la ñuy def parce que pour seen i la mu ngi Fatick mu ngi si seen compte yi ak ay ceeb yu dul jeex ay tonnes mu ngi si ay gouverneur pourquoi pas ñu fexe def démarche pour xaalis boobu noonu ñoom ñu jot ko am lu mun a fàtt parce que mun na fàtt ndax plus de 414 millions am na lu mu mun a fàtt di gërëm ak di sant suñu maman Ndeye Amy Leye ak ñëpp ñu mu ko àndal ñoom Tata May Muna Ndiaye ñoom Ta Assou Dieng ñoom ñëpp donc gis neen seen liggéey depuis euh, ay ati ati at ñun ñu ñëw di leen wax ne rek ayam taalibe ñu ngi seen ginnaaw lépp lu ngeen ñu oo si taalibe yi ak lépp sax lu ngeen ñu oo lu dul loo xam ne day jëriñ Fatick ñun ñu ngi si ànd seeg yéen incha allah. li muy def lu baax amul app ndax bu dee marché yi mu nga fa bu dee hôpital yi mu nga fa bu dee ci taaliba yi mi ngi fa yàgg di ko def nag ci alalam ak dooleem moo tax at mu jot nii la te mosu cee dellu gaaw day gën a yokk rek kon dañ koy ñaanal yàlla li lu mu man daal mu gën ko man déwén wax dëgg yàlla kenn mënu koo fay lëgëndeem gi mu dëkk kër gu ci ne la nga ca war a jot jot nga ko te xaaru ci kenn te joxe nag ci la ku ko man ba di ko def rek dañ la war a ñaanal yàlla li muy def daal yàlla ko yàlla fay yàlla ko yàlla fay. Hmm? léegi kat mooy di ko gërëm di ko sant ñun ñi wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla. lam àndam daal moom ànd bu rafet na waaye alalam boolewu ko kenn ñun ñii sax bu joxe jotee ku ci ne cee yëkkati jox ñu wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla di ko gërëm di ko sant lu ne mu dañu ko defal yàlla mi am dañ koy ñaanal yàlla kii ndey kodd kii may mën a njaay kii man mënuñoo fay ndey am lu ne la ñuy defal lu mu taxawal fii def ko balaa def ci ñun lay njëkke ba pare te loolu nag sant yàlla la ñuy gërëm yaayam ji wax dëgg yàlla di ko ñaanal gudd fan ak wér mu fekke lépp wasalaam